Bakane sec et les groupes Jërë Jërë donc dañoo amoon prestation bu mag boo xam ne que ça fait ay mois ay weer yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci doon liggéey ak équipe bi ma àndal donc waa Jërë studio Jërë TV donc mu nekkoon liggéey boo xam ne liggéey bu yombul la quoi donc euh, pourquoi liggéey bu yombul woon métti na parce que événementiel ñun ñëpp xam nañ li ci nekk euh, ci préparation bi. ci jëli aussi sama waa maison de disque ñu ñi jóg mu jógee Allemagne ñi ki des jógee Londres donc mu nekk bés boo xam ne nekk le 8 janvier bi ñu doon préparé donc dañ ko doon préparer ci préparation boo xam ne nekk maanaam bu jéggi dayoo la donc pour won leen ñoom ñi nga xam ne nekk ay nit ñu weex lañ suñu dëkk ñun moom lañ am suñu dëkk moom lañ fonk donc te li may def lépp vraiment dama koy def c'est parce que Sénégal l'a am Sénégal l'a dëkk rawatina Kaolack gi nga xam ne fa laa juddoo yaroo fa màggee fa donc ça fait des années nag may def benn euh, événement bu tudd la nuit de Sine Saloum donc bii moo doon quatrième année bi et donc ñu dem moins de trois jours ñu ngi woon pendant huit jours ñu ngi woon ci répétition yi donc vraiment mu nekk benn événement bu métti woon nag trop parce que événement soo koy def te euh, amoo sponsor maanaam amoo ñu la jàppale donc lépp dafa ñëw ci samay moyen propre moyen donc ñi nekk ci sama ginnaaw aussi tamit waa bureau bi dooleel ma Jërë Jërë studio ak Jërë Jërë TV donc je pense que ne nekk ak sama mbokk journaliste yi ñi presse bi nga xam ne ne que tout le temps dama naan mention spéciale presse bi parce que presse lépp lu am ñoo fay jiitu ñoo fay mujj donc kon mention spéciale ci presse bi donc moo taxoon ma ne naa woote tey waxtaan ak askan wi donc tey le jeudi normalement suba moo doon événement bi donc événement hôtel Onomo table 1 million euh, ak 500 000 donc dem nañ ba benn moment boo xam ne nag franchement parler suñu njiiti réew di président Macky Sall wax na annulé lépp fekkoon na ne que sori woon nañ trop ci jaayam suñuy table donc. comme nak mom moy njiti rew mi te nit ku ci nek sa dekk ngay nga am donc damay damay respecter man choix bobu en tant que doomu sénégalais donc ta xamna ne que limay def ni donc dama ko don def pour sama rew donc suñu démé ba ben njiti rew mi nak génn wax donc amuñu luddul suivre ko donc annuler aussi tamit liñu warona def xamuma nak ndax temps bi dinañu ko mayaat par rapport ko ñi nga xamne ne dama leen fay indi par rapport restauration yi ah lekk yi dëkkuwaay donc condition yi donc metti na trop donc lolo taxone mané na woté sérieusement tey ji wax ak askan wi ne li motax ñu annulé ko pertement bu metti metti metti metti la parce que lo préparé ay pendant des mois donc lu jëm ci ay affiches ay euh, maanaam banderole lu melni ni lu melni ni affiches xam nga lu melni billet yi donc les répétition yi donc pendant plus de onze musiciens staff bi ñëwagul donc loolu lu métti la donc rawatina ngay def lu mel noonu amoo sponsor amoo dara donc dama koy def c'est parce que dama gëm fi ma donc très sérieusement ça fait moo tax ça fait quatre ans maa ngi koy def donc du kenn ku ma ci mës jappalé du nguur du dara nak très sérieusement il faut être clair donc damay bind comme ni samay morom artiste yi di bindé donc bakan je pense que ne ne bon a dañuy dee ci talibé hein ah. mais li ma du ci Sénégal aussi tamit dafa nekk loo xam ne ne que donc dama am talibé rek ak dal mais madame depuis 95 am sans sou di Baaba Maal yóbbu ma partout ci monde bi may jouer ay Wembley di def fune ma dugg jouer fa donc rafet na aussi tamit comme ni ñuy artiste artistes yi nek ci doomu réew mi donc di def manam seeni événement rafet na suñu bindé ñun gouvernement war na ñoo mën a jàppale parce que toujours dañuy dem ak suñu propre moyen dañuy bind jaar fi gars yëpp di di jaar xawma ndax moom jot na ko wala jotu ko mais à chaque fois dinañ bind trois mois avant wala quatre mois avant donc c'est pas nag pourquoi parce que loolu tax parce que gëm-gëm la ñu am le fait que moo tax ñu jël événement bi di ko tuddee toujours la nuit de ciné Saloum mais cette fois-ci sama producteur euh, tombé mu jóge woon euh, Berlin ñëw donc euh, vraiment ak suma équipe bi nga xam ne ñu ngi jógee Londres xam nga donc ñëpp ñëw financièrement métti na kenn jàpp ci très sérieusement yaa benn doomu aadama boo xam ne ne que am na sama ñaari frères yu dëkk Kaolack bugguñu ma tudd seen tour donc duñu ay politiciens duñ dara dañuy xooslu rek am koo xam ne ne que sëñ taxa Guèye mu soxna baal yi donc moom daf ma wow vraiment ci ñi njëkk a def seen participation te buggul sax ku ko wax moom ci la bokk. mais par rapport que ñun dañoo bokk ci réew mi dëkk ci réew mi donc jël ay millions lu mel ni studio le TV mais yéen ñëw ngeen donc je pense que nous nekk war ñoo mën a donc dama ko def ak samay propre moyen li wax tout le temps du associé du lu ma banque du la man ma def ko pour gëm samay

pour sàmm sama image donc loolu moom côté boobu awma ci benn loo xam ne ne que lu may lu may ba pare que ñi ñi ñëw aussi tamit man maa leen déplacé man maa jënd seen i billets man maa jënd maa def seen lépp seen restaurant xam nga il faut affaire yi mu nekk loo xam ne lu la parce que nit pour mu ñeme la aussi il faut nga won ko lenn loo xam ne ne que maanaam parce que ñun xam nga souvent dañoo am habitude diw mu ngeeg ay tubaab et tout wala yu demee noonu ñu yaakaar ne ñoom ñu ngi ñuy jox donc cette fois ci man ma génne sama budget pour def projet bi donc yag na comme ni ma ko doon defee sans ñom donc là, ni fu nek ni donc euh, voilà affaire yi métti na métti na trop très sérieusement voilà man amul kenn ku dëkk Kaolack ku ma jàppale te si quelqu'un bo xamné ne que si c'est cent albums la quatre-vingt-quinze yi Sénégal fi man maa koy def tay nak jot nañu wax ko quoi ko may limal rek sama loxo mu ngi ci sa biir album donc peut-être que lolu baxu yalla la donc duñ du ne du c'est pas que ñun ñoko ko ñi koy def métier mi mais quand même pourquoi gars yi di le choisir lolu loolu liggéey la n'est-ce pas donc amul kenn ku ci jàpp. baakan baakanu kaolak la. c'est pas bakan bo xam que pour politique wala lenn et tout dafa am lu ma doon ñaan suñu borom donc pour def ko manam li ma doon ñaan suñu borom pour def ko moy ci sama réew fi ma dëkk Sénégal rawatina kaolak donc koñ bi ma dëkk. dafa néew doole loolu moom moo waral la nuy di sin salum da ngay gis ku dëkk ko woon nga nekk jigéen ëmb wala ku dëkk ndar gu ndaw da ngay am problème sax paas pour dem hôpital maanaam balaa nga àgg hôpital sunu borom mën na la loolu moo indi idée bi donc ba nga xam ne ne que ñun liñ doon def ci la nuy di sin salum dañ ko tegoon ci base yu leer yoo xam ne ne que luñ ci gagné rek xalaatoon nañ pour def benn hôpital wala dispensaire bu ndaw sax fi ñu côté këwoon ndar gu ndaw jàpp mbéri na mbabba mbéri na xam nga loolu moo doon sunu sunu parce que mais su dee ñun la donc même su dee som bi la mën nañ ko santé sunu borom rawatina ma ànd ak suma grand frère mu ngi nii ab lay Seck donc direction des bourses la nekkoon moom projet bi depuis ma commencé ko mook suma manager Omar saw xam nga donc ñoom depuis ñu le début ñoom comprendre nañ ci côté studio bi côté jëre jërëjërë TV côté euh, maanaam li ñu doon def Kaolack ñoom xamoon nañ ko ba ci ñoom Sofia ñoom Pathé su ma limee juum xam nga donc gars yi comprendre nañ. bu jëloon nañ nag mesure de barrière yëpp comme ni ko gars yëpp di defee parce que ñoom fi ñu dëkkee fi ñu dëkk xam nañ lan mooy feebar bi man nangu ko. parce que ku demoon Allemagne dem naa fi Allemagne pour 10 jours mais nekk naa fa ay 5 mois mu métti donc kon xam naa exactement lan mooy feebar bi du dëgg. mais quand même comme dama ñëw sama rew gis ni mu demee samay nawle samay mbokk artiste ñëpp a ngi joué donc dama doon jël mesure de barrière yi moo ñu né fu warona def 1000 personnes dinañ fexé mu nekk 200 personnes donc je pense que ne ne que mënu ma def lo xamné né luma tay la parce que amna ño xamné né que ñu ngi doon yëngu plus que 200 personnes duma tuddu tour parce que ñun ñëpp ay ay ay nit lañ te ñu ay bët lañ yor aussi gis nañ li fi né donc mënu ma am sama dëkk diko foyé diko tiaxané wala may def yëfu maa tey j'ai pas de moyen pour ma téye leen fi pendant ñaata parce que affaire yi métti na donc euh, so fi naree tok xaar 12 jours ñu ne waat su 12 jours yi joté ñu ne la ban jour lañ koy bayyi donc lolu yëpp c'est tout xam nga damay samay nawle lañ te bëgg na condition yi may nekk man su ma tukkee ñoom ñu nekk bu ko gën ma teg leen ci condition yu bien donc comme niñ fi nekké ak ñun donc le reste nak après may talal aussi tamit président comme mom moy suñu njit te lépp ci mom la joggé donc man doomu Saalum Saalum Kaolack entre Sine ak Saalum donc maa ngi lay tàllal sama loxo nga jàppale ma parce que yow yaa dogal lii yow yaa tax lii am donc je pense que ne nekk dañ lay delloor cër bi ak respect bi donc di la wax ne la que vraiment donc bëgg nañ nga japp ci mbir mi quoi donc nekkuñ fi nak pour polémiquer parce que gënuñu ñi annulé ñëpp parce que suma yox damay duma sóor kese sama bop damay sóor aussi ñeneen ñi nga xamné ne que tamit amon nañ leneen et tout donc annulé mais comme ñi sumay nawlé lañ ñu joggé ci réew mu sori donc ñëw fi ma ngi talal loxo yi aussi tamit autorité yi ñu japp ci quoi lu ma ngi remercier sénégalais yi donc parce que fi lu fi way def rek c'est parce que sénégalais ñoo and ak yow kenn mënul dara yalla rek man donc maa ngi jéggalu ñëpp di baalu ñëpp ak rawatina ñi nga xam ne sumay xarit lañ tellement woo ci bi